moom kër chroniqueur bi la di wuyee turu Ahmed Ndoye ginnaaw bi nga xamee yoon daal na koy teg loxo daal di koy yóbbu fi nga xam ni moo di mandat de dépôt mu nekk moom Ahmed Ndoye fanaan fi nekk fi nga xam boobee bi léegi foofee ci rëbës tax na jamono guñ toll nii moom chroniqueur bi faroo ci télé bii di Sen TV des médias Ahmed Ndoye dinañ daal di atte lundi bi yemoo 4 novembre 2024 ci ginnaaw loolu ko daan toppee li nga xam ni moo di de permis défaut de permis de conduire faux et de faux mu nekk ay actes yi nga xam ni moom lañ daan toppee tax na sax mën nañ ne yoon daal di koy defoon li nga xam ne moo di mandat dépôt yemu yemoo mardi le 29 octobre ginnaaw bi loolee sax les échos daal di xamle bu baax a baax moom Ahmed Ndoye mu jamono gu ñu wax ab yéen daal di occupé li nga xam ni moo di chambre 27 foofee nga xam ne moo di prison bu Rebeuss waaye nag ginnaaw bi nga xamee daal nañ koy teg loxo boobu ba léegi nekk na nekk mbir bi nga xam ni gis moom journal bi daal di xamle bu baax ki la di Ahmed Ndoye daal di nay enregistré lu bëri ci lenn ci li nga xam ne moo di ay visiteurs loolee sax tax na ñu daal di xam ne passé Ahmed Ndoye daal nañ ñi nga xam ne source bi da xam ne direction bi nga xam ma direction de Rebeuss daal di xam bu baax a baax bëriwaa na ay ñeneen ñi nga xam ne bëggoon nañ def la tout daal di gis moom chroniqueur bi lee waaye nag loolee mujjul antu benn yoon ndax kat dafa nekk li nga xam ne lu daal di lu jafe la ndax kat li nga xam ne moom la war am ci visite dafa daal di mag daal di matal bu baax a baax te loolee sax moom chroniqueur bi la ñu daal di xam kon nag daanaka jamono guñ toll nii li nga xam ne mooy di ay visite yu jëm ci moom dinañ koy di faral di def lii di yemoo ci par ajjuma mu nekk acte yi nga xam ni moom Ahmed Ndoye lu ci mënta am am altin bii di ñëw dinañ ko daal di attee te dañ koy ñaanal bu baax baax suñ ko attee moom yàlla def li gën ba mu génn foofu nga xam ne moo di ci prison boobule